rahmatullahi taala barkatu ñi nuy ngi ñëpp di ziar ñëpp sant ñëpp di màggal ñëpp ndamoo ñëpp tiitaroo ñëpp ye ginnaaw buñ leen sante di leen remercier ah di leen remercier sincèrement gis nañ appel yi bari nañ lool message yi Sénégal yëpp mi ngi riir <laughs> kontaan naa ci daal gis naa ni bëgg ngeen ma lool jàpp leen ne nu ko raw laa leen bëggee bëgg ngeen ma benn xeetu mbëggeel goo xam ne man sax daf ma dépassé

waye barke alquran barke alquranul karim ñi leen jité ci réew mi 80% yépp wo nañ ma bokk na ci ño xamné sax clash na leen <laughs> man bañ ma esaraf sax daf ma tiital bokk na ci ño xamné ne def na fi live clash leen ñuy ay autorité de la république sax wo nañ ma ma ngi leen di remercier de passage eh, dama jangal nañ ma lu ci bari ndax foguma won ni sax man sama kaas gi may wax nii muy toog nii di wax am na ñoo xam ne maa ngi leen di wax sax waaye affaire ba yegg na ci ñoom noonu euh, maa ngi leen di remercier nag comme nu ma leen maa leen promettre ne du ma leen du ma wax seen tur am leen di remercier ci pouvoir bi comme ci opposition bi waaw waaw xaw ma sax ba xam dama koy wax wala duma ko wax waaye nag garaawul en daal am na it koo xam ni ci opposition bi tam kilifa mag la ci benn ci ay soxnaam woona ma ñu waxtaan ndeysaan ndakati ko mu bëgg la ku mu bëgg sax di ma nemmeeku bu mu déggee loolu daf ne ma toute la nuit nalawul <laughs> ma ne ko ma Eh, boo tëddee nalawal tata boo tëddee nalawal <laughs> loolu déstabiliser wu ma non non non mënuma déstabiliser sax surtout boo demee ba repérer sa noon moom nga xam ne kii sa noon la yàgg na nag doon sa noon musula bëgg je pense que ñu teg seen clan je pense que c'est une longue histoire yooyu jaru ko mais daal boo tëddee nalawal am ñeneen euh, di tamit remercier aussi ah de passage le président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall remercier malgré li wax yépp ak humilité le président de la république du Sénégal monsieur Macky Sall humilité marqué sincèrement muy marqué <laughs> comme gars ñu

parce que nee dafa voyager ni dans deux jours il sera au Sénégal et il dina ma woo ni waxtaan donc alhamdulilah comme ni ma leen ko waxee yàlla def na ni lu ndaw lañ waaye dem nañ ba bokk ci renu Sénégal maanaam ponkal yiy jiite réew mi sax ñun dañoo am ay kàddu yoo xam ne ni déglu ay ponkal ay ministre yu mag ci réew mi yu yor renu réew mi sax ah léegi laa ci coupé kenn ci kilifa yooyu ndeysaan ni waxtaan lu yàgg sax waxtaan nañ nu mu dee dee benn vingt cinq minutes voilà <laughs> mu ne ma boros nga ma ci sax nangam nangam man xaw ma woon sax dañ dafa jël rek ñuy waxtaan mu ne ma man boros nga ma ma ne ko ah kan kan la ci mu ne ma xamoo ñi ngay boros de ma ne ko waa man nag gis nga de damay toj kaasi rek mais xàmmeewuma gars yi de ndeysaan <laughs> bu ma waxee turam ma ne ko ah oui dama jaaraate suuram sa ban kii mu ne ma man la ministre nangam ma ne ah d' accord ndeysaan <laughs> ñu waxtaan macha allah ku baax waay voilà mu ne ma moom def na trente ans ci administration Sénégal démb la doon ministre ñaa koy commencé di di di sikkal ak sàkkal ay sikki sàkk man bu ma waxee loolu damaa tiit mu ne ma trente ans waaw trente def naa ko ci administration kenn mosuma waxal man ñu ministre rek ba ki démb ñu fal ma ministre rek coow la ni kur man ci laa ne may ñii <laughs> loolu lañ bëgg ma ne ah euh, macha allah kon ya yalla mo def loolu ñu nekk nit yi nga xamne deug mo ñu ñor du wax deug te ñu suñu buntu yi comme niñ koy faral di waxe buñ waxe kenn dara koku nonu bu ñewé ne mom bugg na wax dañ koy may la possibilité de parler de ñu déglu ko mo la fi de bu ma waxalé li mo la ki ni nangam ak nangam man wallahi def mako. ki moy nangam dama lay déglu ba paré boo demee ba mu metti ma ne la est-ce que bëgg nga confrontation ak ki ma jox info boobu noonu est-ce que bëgg nga confrontation parce que man dëgg moom a ñor dëgg moom fi bàyyi dëgg moom fi bàyyi combat bii dañ ma fee fekk te dañ ma fi bàyyi ma continuer sama combat bi Californie sax ñaanal naa ko nag mais nag gars yi nee ñaanal naa ko ñu dimbale ko pour mu pour mu tukki mais daal gars yi dañ ne ma kenn bëggul taqaloog moom parce que dafa salte salte la ñu wax nag salte mais non Californie moom dafa salte moom kenn bëggul identifié wu ci moom motax dina yàgg senegal dina fa son lol dina fa son lol dina fa yàgg yit mais ñaanal na ko nañu jappale ko ngir yalla pour mu delu Europe quoi parce que nit mom boko yene yéenee <laughs> ñak ñak matadi la rek matadi la waaw ah. li ma di waxal dal moy encore une fois ma len di remercier bu baax di len gërem di len sant xam nga dama wax rek ñu nekk ci pouvoir mais nak waxuma len tam ñu nekk ñu nekk ci pouvoir bi kenn kese laa leen wax sax touram moy le président parce que moy le khalife général de tous les sénégalais. waye it wax naa leen ci opposition bi mais waxuma len tour man len ñi nekk ci opposition bi ay kilifa tamit ñi nekk ci opposition bi bari na ñi ci wo voilà parce que fogon nañ ni deuduna combat bi fogon nañ ni dem na sama yoon parce que xam nañ ni nit bu am conviction la donc woo nañ ma ñoom it waxtaan ak man ñaan ma man président de la république je suis un sénégalais bu soxlaa wax ak man dama koy déglu am naa sama idée am naa sama vision am naa sama nopp je l'écoute attentivement ñu waxtaan parce que nit mënul toog di nemmeeku dara di metti metti lu dara ka nga jàpp ni moo leen ko teg tey dem bay wax ak yow nga ne doo ko may yow lan nga bëgg yow lan nga bëgg ki ngay wax li nga koy wax li nga lu ne nga yàq ko wala la nga koy wax yàlla may la possibilité kooku ñëw ci yow bu ko neexoon taxaw fee di xëccoog yow di reyanteeg yow mais defu ko bu ko neexoon la nga koy wax mu mere la ci ne non du wax ak yow yow parce que moom moo la kilifa moom du sa moroom mais mu wàcce boppam jël téléphone am woo wax ak yow ne nekkal ci combat bi yaa ngi ci yoon wax wax ju rafet la wax vraiment yaa ngi ci yoon dafa nekk ci voyage mais bés bu ñëwee incha allah dina waxtaan ak man ah, mais dama koy déglu ku la jox la mbaa wax la da koy déglu waaw way loolu mooy yëfu nit da koy déglu la nga bëgg a wax te mu nekk ci yow nga yeggee ko ko man day nii laa gisee nii laa gisee parce que moom am na fu mu la teg bu demee ba woola réew mi ak a bëri nit 17 millions yow nga nekk ba Canada njiitu réew ma da la woo parce que moom bëgg na waxtaan da ngay déglu wax ko sa xalaat di ko ci sax ñaan boobu ko mënee ñaan di ko ci ñaan yenn affaires yi yoo xam ne xëy na yow bëgg nga mu mu def ci mu def ci mu def ci pexe xamal ko ni man bu dee man yegg am na fu ma la yegg yow monsieur le président mais bëggoon naa nga libéral ma ñoom Abdou Karim Gueye bëggoon naa parce que monsieur le président man saaga bu ma la njëkk a saaga te moom laa la mujjee saaga xam nga kañ la mooy ba nga jàppee Abdou Karim Gueye man du ma saaga kat benn saaga laa la saaga te boobu ba léegi sa fait trois ans trois ans je me rappelle très bien trois ans ma nekk ci parc bi métro park ma nekk ca park ba toog di la saaga parce que jour boobu nga jàpp Abdou Karim Gueye Abdou Karim Gueye dafa am ñaari ñu bokk dañoo bokk en tant que mouvement hip hop muy sama mbok di sama xarit moy ben ñaar Abdou Karim Gueye ñun dañ ko ci révolution wàcc ci mbedd ndax ñun ño créé jël Abdou Karim fekk ko ba fu mu dëkk dem yanu mouvement bi mu commencé di xeex kon Abdou Karim Gueye buñ ko gisé ni ñun dañuy parce influencé Abdou Karim Gueye à que mais ci mbedd taxaw di jëmmal muy beneen lu tax ma am sof cofeel ci Abdou Karim Gueye ñaar ñu bokkaat encore ci mouvement bi mooy muy combat bi ñuy def nii ñu bokkaat mu nekk homme de principe donc man doomu sanguin boo ca laal moroom ji yëngu boo mu buggee yëngal laalal Abdou Karim Gueye boo mu buggee yëngal laalal ay Cheikh Omar Diagne ñooñu dafa am beneen lu ñu am lu ñeneen ñi amul parce que Cheikh Omar Diagne rab na Cheikh Omar Diagne gars rappeur la woon rappeur téye micro di rap Cheikh Omar Diagne mii yàlla def ko mu doon tey ab ustaas bu mag macha allah am xam-xam konk tey bu ma tëddee nelaw njaaxanaay ban yandoor du ma nit saa yu ma yewoo xalaat Abdou Karim Gueye chaque jeudi ma yónnee doomu aadama pour ma dem seeti ko chaque jeudi man ak Abdou Karim Gueye du ñu jóg ci di déggante ndeysaan chaque jeudi ma yónnee doomu arme franc chaque jeudi mu dem mun len leen anamu dama leen jeudi bi passé rek jeudi bi passé chaque jeudi la la wax depuis ba Abdou Karim Gueye nekkee ci kasso bi chaque jeudi mu gis sama yoo yóbbante te coow jibul bal takul souf yengul waxuma ko fenn fenn chaque jeudi Abdou Karim Gueye yek sama yëg ma bàyyiwuma ko ci kaso boobu seetaanuma ko ci kaso boobu dama taxaw parce que Abdou Karim Gueye fu ma toll la kon donc yoon la tey jii ki nga xam ne mooy kilifa bi di kilifa bépp sénégalais tey yaay may ma possibilité boobu ma ne ma ñaan ko loolu waaw ma ñaan ko loolu ko jàppale ma ngir yàlla pour waa Abdou Karim Gueye ko bugg naa lool lool lool lool nga nga dimbalal ma ci quoi trop dara tewu la ci réew mi ndax yaa jiite ku ku fi taxaw ya ko jité liñ ci mun rek ñu jàppale ñu ci budé mom yow la offenser lool mu nga ko koo baal comme budé dañ la offenser lool mu nga ko koo baal et cetera et cetera ça dépend ci fu wax ji yegg rek quoi donc sincèrement euh, sénégalais yi tamit aussi won ma sen tiofel ñu ci bëri dañ mer sax ñama lan motax nga tudd ay ay kilifa ay maire ay paa ku ne woo na ma ndeysaan ñii message yi maa ngi jégalu nag lu tax jëluma ko parce que dafa bare bare bare bare bu doon tey damay jël appel yi di jël di tontu message yi moom duma ma fi da fii laa jëkk ndax ba dafa mel ni sénégalais yi ñëw buubu daw ñëw dafa mel ni dañoo jàpp ni lu rëy mi ngi leen mi ngi mi ngi mi ngi leen di woon ginnaaw bu kuy nit sax kuy nit boo taxawee xool dangay nga xam ne ndeysaan man damay wax sax mais man man qu'est-ce qui qu'est-ce pourquoi sénégalais yi nalawuñ pourquoi sénégalais yi benn wax bu ma wax rek mer ci waaj bu ma ma doon jéem a manqué respect bu tekkiwul dara ci kaw suuf di ma jéem a manqué respect ndax soxor ndax bon rek la ma wax noonu tax na benn doomu aadama nalawatul ñëpp di ma message ñëpp naan moo laa jàpp ci moo laa non moo laa lii moo laa laa moo laa laa loolu dafa daw yaram dafa neex ci xol yi ndax dangay xam ni lii du yow lii yàlla moo ko def tiofel gi yalla moko mais du sa du sa manoré am ñu ci mer lool ñi dem ci page waaja diko fa fa mais nga il est négatif moy mom man rek lay man la respect mais ñi koy saga yo djemu tontu kenn parce que dama gis ni après j'ai compris que qui ben guignol la kat la quoi parce que même xex bi da koy saboté euh, di sabote quoi en fait day day te sincèrement même ñu nekk ci Sonko carrément nee nañ ma xamuñu ko ñoom ñoom xamuñu ko maanaam xamuñu xamuñu jëmmam moom munuñu bu taxawoon seen kanam munuñu ne kii la mais doomu aadama buy saboté xeex bi la buy toog lépp mu def ko émotion lépp mu fooy émotion ñu naan day kaañoo day kaañoo bu doon moom dañoo dañ ko rey ci booy ñu rey mu bokkoon ci tey du toog di kaañoo bu doon moom ay frère am lañ dóor bal comme nu ñu reyee booy nekk ay yëmbalak ak booy nekk Pikine kon tey du toog fii di kaañoo combat bi du combat wu kaañoo caaxaan moo faaxe dëgg moo des combat wu caaxaan loolu nekku fi nit yi ñu ngi jaay seen bakkan nit yi ñu ngi tayle seen bakkan nit yi ñu ngi rayante donc ay kaañoo dañ ci nekkul kaañoo noo nekkuñu ci donk dañu nekk ci xeex mais bu ma gisee ne ab sabotekat la muy fort di caaxaan jël sañu affaire bi def ko caaxaan je pense je me suis dit kii xamul urgence kii xamul fu ñu toll. mais comme ni ko gars yi di waxee oh, yaa ko may buzz yaa ko may buzz xëy na moom buzz lay wër <laughs> mais ñun moom euh, amuñu jotam. te <laughs> am na benn mag bu ma ne bu bul sax jaar ci turam dee ko wooyee. mbalit wala de ko wooye ñu may jox ay tur yu ma ko war a wooye mane ko kooku amatuma jox jotam c'est dépassé naa ko romb naa ko dem sama yoon vraiment gangsters yi tam ñoo ñu ngi ma wax naan ma wutal numéro mu gars ñi defal ko bagage fii nee naa leen non du lu gën ci man quoi voilà mais <laughs> gangsters yi sax nekk si bi gars yi ñoom ñëpp nee nañ ma booy buujul ñu numéro am jul ñu numéro am rek ñu tàndur ko benn pièce waaye jaar fu xasaw léegi te sa sa coow du jib bal du tàkk mais loolu it

maa ngi live maa live ni maa ngi lay rappelé maa live maa lay rappelé Mais ne ben live ni maa ngi lay rappelé léegi waaw léegi donc xam ni da ngay da ngay respecter doo saga l'intelligence des gens plus de mille six cent soixante seize personnes 17 ans ak yu nek YouTube ak yu nek partout aduna bi yeb braqué di déglou. nga toog fee mel ni yow yaa nampu ci ween bu kenn nampul naan yéen ki ngeen di seetaan sax yéen waru leen ko mérité wul ngeen koy seetaan kii nga xam ni day fen rek mais mais wax naa ko ku sa bàyyi fen sa yaay tëddee ko boo màggee loo dégg foog ni fen la mais bañ la wooyee place publique na la kaay génne ñetti fen mënoo koo génne saaga rek ngay def saaga doomu aadama yi yëpp taxaw di déglu ay kilifa taxaw di déglu ay jabaru kilifa taxaw di déglu ay doomu kilifa Sénégal yëpp di déglu yow nga ne yow yaa xàmmee li kii di wax moom lépp ay fen la mais ñoom yéen ñi di waxoon yéen kenn baaxu ci yéen kenn amu ci juddoowul ci jur gu baax moom moom rek la baayam ak yaayam ku tekkul dara moom la baayam ak yaayam jur moo xam moo ràññee dëgg ak fen waaye yéen mënu leen ràññee dëgg ak ba mu ba mu am fit sax naan leen ku ngeen di déglu noonu kooku day fen rek bu leen ko déglu <laughs> non am na ñu réew nag senegal am na ñoo xam ne noqu leen moom dafa jot noqu leen bañ na ñaret dafa jot quoi mais ñimewuñ parce que bo duggé sen biir page yi duñ ci def photo duñ ci def dara daram new fa page am fa faux compte la amul ñi vous wax fu mu dëkk wa taala ay tapet lañ duñ dara ay doomu adam, la xam mën nañ nekk fi ba aduna tukki ken du len japp ken du du parce que duñ woné dara dañu ragal tapet lañ donc ces gens là vraiment il faut les réduire On néant multiplier par zéro et puis on avance le combat continue dañoon de toute façon ñu ngi ci combat bi